mais oh c'est Marie non. waaw man la Marie kay. yow tey ci suba yow yaa ma jaay añ bi fële ci sa restaurant. waaw sama restaurant yow ñëwoon nga foofu añ. mais yow bi nga xamee ne da ngay jaay yàpp mbaam yow lu tax ma ñëw nga jaay ma yàpp mbaam. dama jaay yow lu tax nga gis restaurant musulman nga gis restaurant wu chrétien nga ñëw dugg si bu chrétien wu xam nga ni man yàpp mbaam rek laay jaay. ku xam loolu bu ma ko xamee. bu ko xamul doo ma wax ne yow mbaam ngay jaay. man pour man yow chrétien nga moo taxuma jaay la yàpp mbaamu te man yàpp mbaamu rek laay jaay. mais yow loolu li nga def du yoona ah. eh sama yoonu nekku si man yàpp mbaamu laay jaay. ndax chrétien yi dañuy ñëw ci man te man chrétien la ah loolu ngay wax. man loolu laay wax mais moomu leen dëkk bi laa lay wax nii seen restaurant boobu naa ko tëj ku waaw. doo ma xasu nag doo ma xasu de doo ma xasu ndax yaa ma fekk ci sama restaurant mais bu ma fekkee nag doo ma ne yow lii laay jaay. yow laa jooma dangaa ñëw nga dama defaral lu ma añ ma defaral la nga añ ah noonu la gis nga dinaa ñëw foofu moo fa fekkatee nga togg yàpp mbaam naa ko këpp dóor la nga xam nga dóor ma man mi yow soo ma dóoree di nga xam ni xeexu njaago du jeex ah! dinaa woo Joséphine dinaa woo Michel dinaa woo André ma woo ma woo njaago yëpp ñu ñëw ci yow. bu boobaa ñu xam. yow suba di nga gis njaago yi yow. ah yow suba di nga gis njaago yi dinañ tëj sa restaurant bi nga xam yow yi. kii moo yaa dugg sama <laughs>